bi euh, Macky Sall tontu gu mu tontu premier ministre Canada bi fi gane woon ñibbi na démb nee na ko gay pride moom du amee Sénégal ci tënk euh, mbirum góor jigéen ñi dafa Macky Sall dafa lànkati ndax moom Trudeau ñëpp xam nañu waa kanadaak yooyu xeeti droit yooyu dañ ko dañ dañ koy défendre rek oh, oh, oh, léegi daal ba mu ko fi waxee ñëpp dégg nañ nii Macky Sall it nee na ko pas de gay pride au Sénégal oustaz ci yow laay tàmbalee lu ci sa gis-gis du fi am. du mm. du lu président Macky Sall wax. Mm. du fi am mais du fi am. <laughs> voilà c'est-à-dire même rek. Mm. du fi am mënu fi am. parce que aussi itam euh, te dafa am loo xamante ne nii addina bi dafa xaw a doy waar. c'est un village planétaire maintenant mais dinaa la wax benn mbir. dafa am lu ñu xamee yare ñu ko ci diine moo xam ci chrétien yi moo xam ci jullit yi. te yàlla dafa bëggul ñu fisal lu ñaaw. bëggul sax ñu di ko tudd. donc am nañu benn culture. boo xamante ni bii diini moo ko lal boo xamante ni bii vraiment am na yu mu ñu dàqal. Mm-hmm. bon kon su président waxee loolu. ñu jàpp ne du am rek. Mm-hmm. waaw man dama bëggoon wax mais dans le même sillage que oustaz évidence la quoi au Sénégal c'est que c'est une lii du fi mën a am. et dafa am benn wax très souvent je sais que c'est gis-gis mais deux secondes rek moo expliquer lii li <laughs> ñuy wax parfois oui on est sous mën a c'est vrai on est sous la menace ay transporter ay. valeur yoo xamante ni nekkul suñu valeur mais même loolu bu amee warul tax te mënul tax ñu ñu ñu ñu gëm ñoom li ñuy gëm tu sais pourquoi hmm. loolu Sénégal dañu si war a yee yee seen bopp parce que tubaab yi je dis tubaab c'est pas c'est pas du racisme hmm. waaw tubaab yi dans leur globalité ñoom ñëpp dans tous les coins du globe dëkk tubaab boo ñëw am na côté boo xam ne côté cosaanam da koy téye ñu ko weccoo kenn tubaab yi ngay gis ni dañu am ay cosaan am ay culture yoo xam ne dañu ko dañu ko gëm dañu ko laal donc nañuy gëm loolu ñu tamit loo xamante ne kenn du ko laal même bu fekkee ne le monde est devenu un verre y a des interconnexions et tout am na loo xamante ne ñun nañ ci def ñun tamit parce que ñoom ñu koy véhiculer am na loo xamante ne mënoo ko laal si ñoom te aada la ak cosaan la preuve ils sont tellement dans ces croyances que ils ont des rois ay buur Afrique amatul buur pratiquement buy buy buy gérer réew or ñoom ça existe toujours oui. c'est important la preuve fi mu jógee c'est important. Bouba. non mais en fait am na yoo xam ne moom. jarul sax wax. jarul sax wax mun mënta ne par contre euh, euh, ama ñoom dañuy yeb sax quoi. parce que le fait que ñuy ñuy osé sax di ñu. ñëw di ko ñu interpeller sur loolu man loolu moo gën a métti c'est pas li leen di tontu parce xam naa tontu bi. Hmm. Euh, pourquoi il pose ces question benn benn kii fu mu ne nii boo demoon boo pour les polygames là et tout ça. boo demoon boo demoon Canada foofu ñoo ne seen benn kii benn waay ne ko dama lay takkal ñaareel prison la waaj dem. Mhm. yaa may dégg ah. booba bàyyil dóor yi sànq ba tey yaa ngi dóor ay dóor yi. mais dóor la laa compris ay dóor la. Ah, non a dama comprendre lan a dama ne la ah, yow yaa fi daaw damay génn sa waxi daaw gi de. <laughs> waxu ñaareel bi yow méga mea culpa bi mu fi émission bi day tas. <laughs> voilà ñun buy Saint-Valentin suñu kër ngay wax. mais dañoo am benn bés jaww nee na day tas émission bi. dama ne la am na yoo xam ne mi ngi am boo ko defoon seen dëkk yi sax naa ko am. dañoo am benn groupe dañoo am benn groupe affaire ñaareel bi muy wax nii. Ah. dañoo am benn groupe d'amis oh, d'enfance. Ah. je te jure ah. moom mooy affaire xam nga luy ultimatum bi tey muy euh, enjeu bi. kan mooy ñeme jabaram wala au point que mu nekk si groupe bi di wax suñu groupe Noumbelane c'est un groupe de treize. Noumbelane waaw yow léegi. non on s'appelle Noumbelane ça veut dire que l'histoire là li ngeen wax nii moom moo fi. non non les gens pensent la ko wax de fii. ah bon ñu ngi non Boubou président et puis Boubou lu moo am tàccu président. c'est-à-dire au nom de quoi on vient fait en fait en réalité. nga rek mais hmm. du sax noo bi. dañ ñëw xam nga la. Hmm. du noo bi ñu wax. Hmm. cest dire que boo ñëwee réew dëkk jàmbur. ah waxtaan day neex borom këram. c'est-à-dire que il waruñu oser ñëw di. ñu ñëw fi suñu kilifi diine yëpp toog. ñëpp toog di ñu ñëw fi di visiter suñu dëkk di aborder yenn question yoo xam ne xam nañ la réponse mm. mais quand même dañ koy aborder pour man foofu problème boobu la am c'est pas la réponse mais déjà la question bi ñuy posé kaw waaw mais mais il faut se féliciter de la réponse xam nga man dama toog réponse bu nga ko déglu mais loolu laa wax mais non on connaît la réponse fëgg yi mënul fëgg boobu mënul mel mais nañu bàyyi question yi ah. dañ koy bàyyi bi moom ay fëgg merci man kay euh, effectivement li euh, Bouba loolu la par exemple question bi defe naa question bi dee na. Hmm. terminé. Hmm. devant Barack Obama lii la président ah. waxoon. mu waxaat lii devant le premier ministre je pense hmm. que kenn dootu ko poser question bi. Sénégal moo nanguwul lii ci seeni société jeex na. gis-gis bi ci topp Pierre beneen gis-gis bi. Euh, tontu boo xam ne ni naan tontu mu du forof moom Thierno bokkum ambassadeur France parce que su ngeen ko dégloo ci week-end bi ambassadeur France dafa àddu ci terre bi euh, wax loo xam ni safaanoo naag euh, li nguur gi <laughs> wax wax na tamit ci affaire u Sénac euh, autoroute. renégociation kii. voilà ci problème mu nañu renégocier ak yooyu. la tarification Thierno Bocoum nag nee na mais luy yoonu ambassadeur France. ci ci ci ci ay mbirum Sénégal. Charles d'ailleurs si tu veux pas que je me mêle de tes affaires ne m'associe pas à tes affaires. Mm. ne me mêle pas à tes affaires. Mm. oui c'est tout. <laughs> bon, l'ambassadeur c'est le représentant de l'État hein. Mm. je pense que am na droit wax am na droit wax ci politique. économique de son pays. peut-être mmh. que c'est même si FAG privé la tamit. Oh, mais mais il défend son son son industrie et ses entreprises. Bouba mais moi je suis parfaitement en phase ak ak ak ak Thierno Bocoum kii def ñu yëpp. Mmh. mais bu boobaa bu la bul ko laaj dara. <laughs> bul ko laaj ñu jëmbali la. Papis Diaw mu yabaat mais est-ce que mus nga gis c'est c'est toujours comme ça. Mmh. Ah, les ambassadeurs des États-Unis des grandes puissances de la France. mais c'est des gens qui sont à la limite des ay moitié président lañu quoi ils ont tous les c'est vrai. <laughs> non ils, ils disent tout ce mais la main au mais mais ñun ñoo moom suñu. waaw allez dañuy yàpp bu wax na dëgg. Mhm. <laughs> allez ñu dem bi mooy bu mujj bi. bu mujj bi football la ak jaani Infantino moom mooy président FIFA dafa génne xelu ne nañ ci xalaat euh, bàyyi Coupe d'Afrique bi ñuy def ñaari at yu ne yóbbu ko ci quatre ans ñeenti at yu nekk ñu koy football bu boobaa. ah dinañ ci jàpp ñoom ba nga xam ni koppar yi muy génnee dana ful ba ñeenti yoon wala juróom benn yoon jamono ji li ñuy am ci Coupe d'Afrique ci xaalis ñoom dinañ ci jàpp. te mu doon pourquoi waxoon nañ pour tout le monde aussi. pourquoi waxul euh, wax attends. pour lan pour non vas-y vas-y. c'est xamul xamul affaire bi ñoom ñëpp dañoo jàpp africain yi. Hmm. ñëpp jàppee la rek. parce que boo gisee ñuy ut arrangement yi. Hmm. dafay am ay ay ay perturbations au profession africain yi nekk foofu ak club yi ñoom ils cherchent les intérêts des clubs européens hmm. au détriment du spectacle de tout ce qui tourne autour de l'intérêt du football euh, africain boo man du ma maa koy wax Eto'o qui est une référence en football qui est contre c'est sommité football yëpp africain ils sont contre hmm. en d'autres termes on doit dire non nañu bàyyi suñu kii nu mu nu mu nekkee woon ça ne nous gêne pas et ñu respecter suñu calendrier bu ñu arrangé par hmm. celui qui fait l'affaire des clubs employeurs qui sont en Europe bon moi je suis pas je suis pas contre à 100 pour cent. waaw hmm. euh, euh, parce que tout simplement bu euh, ñu ban dëkk lañ nekk ni Sénégal. Hmm. tey jii nii mënuñu organiser Coupe d'Afrique. waaye. Guinée hmm. bi. mënuñu ko Gambie mënuñu ko Guinée Bissau mënu ko. dañuy on est obligé dem ay Égypte di mu ñu ñuy kii saay te ci li mu junj nee na nee na ay mille milliards la ñuy def ci tey jii nii boo indilee boo indee benn joueur buy jouer Paris Saint-Germain wala Liverpool wala dara indi ko fii muy jouer yaa ngi def carrière am risque amuñu terrain yu ñu footballé bu la punkal punkal boo ko yebee ca doxin wala. Hmm. aujourd'hui bu ñu amoon ci dëkk yëpp ay ay ay stade. Hmm. yu yu performant. Hmm. ay pelouse yu baax. ay truc ñun mën nañu am yenn prétention yi. est-ce que joue en Afrique. noir fii de l'ouest nii wala dara ci dëkk yu bëri fii c'est un risque pour la carrière d'un joueur international il faut ñu comprendre benn affaire su mooy ñun ñëpp ay ay ay ay ay nit lañu. du ma dem fee ñu may fay cinq cent million par mois ma yor ci sama njaboot bu ma dee Sadio Mané yor ci Bambali yor ci sama village su waay xoola tey jii saa yu ma joué maa ngi am risque te boo boo boo sa tànk ba yàqoo wala dara fii lañ lay romb aujourd'hui ñun ñoo war a revoir suñu situation. Mm-hmm. tey jii Sénégal mënu organiser Coupe d'Afrique bu ñuy jouer on est obligé dem jouer ci ay terrain yoo xam ne c'est pas un terrain digne de du nom de de euh, euh, Khalidou Koulibaly après ñu bëgg am la prétention d'organiser la CAN tous les deux ans saa yi. doon mm-hmm. waxante dëgg loolooy loolu quatre ans yi ñun amuñu yenn prétention yi mm-hmm. parce que. li ñu waroon def defuñu ko. ba ñuy imposer quatre-vingt-dix-neuf et pourtant dans ces arguments justement. non non ba pare nag ba pare leen laa du nangu. ba pare leen laa du nangu c'est-à-dire leen laa du nangu gis-gis la du ma nangu débat bi ak Papis parce que. c'est un truc de sport kon bàyyi leen ma indi ma indi ko beneen yoon sujet allez Charles Faye. Charles Faye bàyyi leen ko yéen ñaar bii deux ans quatre ans yéen ñaar yéen a koy def. wuyu leen Charles deux ans ou quatre ans. <laughs> non buuba woon na wax la ànd ak buuba c'est-à-dire nous on a des fiertés mal placées. Hmm. sans que loolu moo on a des fiertés mal déplacé fii nga fiy def coupe d'Afrique ngay ngay ñu lay wan ñu lay ñu lay nëbb tribune yi parce que tout simplement il y a personne dans les stades nous sommes <laughs> vraiment Boubou tu raison quoi mm. nañ fa def coupe d'Afrique tous les dix ans ah, la football docteur doo dem Saint-Valentin vraiment doy na. mais déglu leen déglu leen oustaz. non non non yéen nee naa leen tey oustaz 2.0 laa leen indi. oustaz oustaz xam nga dara ci football. waaw mais man demal nga Saint-Valentin. vraiment football la wax. yow yaay Saint-Valentin. Bouba arrête de perturber. je vous libère. dem leen dem leen dem leen. c'est du jamais vu dem leen. mais bu mu dem leen dem leen bonne fête <laughs> gars yi bonne fête allez bonne fête allez bonne fële. c'est fini c'est vrai. yëkkati le plat non non non. ah non non di nga ma wax de non. waaw ku ne loo xam ci affaire bi yow. Ah, waa jëppal nga war nga xam football. <laughs> non non waa jëppal nga war nga xam football allez. <laughs> mais non bien sûr xam nga football. mais c'est-à-dire moom dafa wax dëgg. c'est-à-dire moog saa waay xëy na du ñu euh, laalante tuuti. mais quand même ku ci nekk am nga dëgg quelque part mën nañ ko mën nañ ko parce que xam nga ñee seen ay intérêt rek la ñu gérer. seen ay intérêt rek la ñuy gérer lu ñu wax lu nekk boo xoolee ba ci biir xam ne ñoom seen intérêt moo ca nekk moo ca ëpp mm-hmm. mais aussi itam en Afrique yàlla ma yàlla baal retard bi daal xaw na bari tuuti. xaw na bari am na nu ñu doon am ñu doon euh, doxale mhm. am na nu ñu doon euh, maanaam suñu infrastructure yi ak ni ñuy gérer suñu joueurs yi sur tous les plans mhm. kon dinañ mën a sax répondre kii mais boo ko boo leen répondre lan nga fay teg ñoom il part seen intérêt bopp la ñuy wax. seen intérêt la ah. ñuy wax. nee na programme ah. mu 1000 milliards ngeen tabax stade nangam sangam. mais ça c'est bien sûr la jël en compte. docteur yow war nga xam dara ci ci football. bëgg ah, nga football effectivement moi je voulais dire que. oui bu ko defee dafa mel ni dañuy discriminer Afrique quand même. Hmm. c'est pas mel ni ne serait-ce que pratiquement ñoom ñu cantonné leen à tous les quatre ans alors qu'ils doivent. marcher au rythme du monde même. su hmm. dee amuñu moyen. Hmm. il faudra qu'on essaye de de nous ici à et non faire. Euh, un football à deux vitesses. Euh, à deux vitesses mais, mais pourtant nag moo am de moo am nag. à deux vitesses c'est vrai mais moo am Pape. les joueurs que nous avons en Afrique. Mm-hmm. ce sont les joueurs qui qui n'ont aucun complexe. et maa lay laaj maa lay laaj yow maa laaj. oui football nu koy waxee ci anam. Euh, <laughs> xaw ma ko équipe daal xawoon su ma jumul mënut a xaw ma la ñuy wax. ma xam lu laa xam. Ah. ilal madrasati. <laughs> ilal madrasati. kuratul qadam. kuratul qadam voilà léegi macha allah. alors vraiment merci beaucoup Bouba ak Charles vous l'avez constaté dañoo.